على من يا ولا سسدي لو كل حال بالهدايا مدي بسم الله مجهول الله يقول لله شيخ سيدي مختار بسم الله مجهول الله جوجل لي شيخ سيد مختار تينا لله رب الاله مميمل لله شيخ سيد مختار داي جام بي الله بو ويتل الله تيول يا الله شيخ سيد مختار اي لا مريد ما ببغ بامبا te gem yonen ba moy si di muxtar kuy wax lu bax la te jëf ngir yalla ku jublu yalla moy si di muxtar sadiq bu wer la cheikh baara mbër la boroomi la te si di muxtar ku yalla wolo, yonen ba wolo. Seex Bamba doy la mooy Sidi Muxtaar nee ñu ngi leen di jottali seen nee na ñu ngi leen di jottali seen nuyoo ak seenu cant. ci lépp mu doxee ci baatu Cheikh Sidi Makhtar. lépp nag mu doxee ci baatu Serigne Cheikh Sidi Makhtar. ndax liggéey bi ñuy liggéey moo leen ko santoon. bañ leen ko njëkkee sant ca kër ngànna lañ demoon ñu moom la leen woowoon ñu def ko fa bañ ko defee kër ngànna ba mujj yàgg mooy nañ koy ñëw di ko defee Mbàkke Kajoor gii Cheikh Mamadou Moustapha mii toog bi mu ñëwee moom it nee na ni ko sëñ bi daa defee rek ak fu ngeen ko daa doxale rek nee na noonu la noonu rek la koy defaat moom nee na Cheikh Moustapha it daa gën a yokk doxin waaye wàññiwu ko da ko jëme kanam nee na loolu nag sëriñ gi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax ndax nee na ñoom kat amuñu lu may alxuraan génnaaw alxuraan ci Serigne Touba rek man mooy sama yaakaar ñu amee alxuraan ba noppi amuñu genn yaakaar lu mooy Serigne Touba tey ak ëllëg. nee na mu dellu santaat nag yàlla bu baax biñ booleeg moom nga xam ne ñun ñoom ñëpp ay jullit lañ. bi ñu ñu dellu ko santaat nag bi ñu boolee kër Serigne Touba gi. rawatina nag bi ñu boolee kër sëñ Mouhamadou Lamine Bara. ca maam ya ba léegi nag ñoo ko ànd. nee na dañ ñu mën a jàngal xoraan bari nañ lool. ñi ko dégg bari nañ lool ñi ko bëgg bari nañ lool nag alxuraan yi benn sant mënu ko dafa mel ne nag kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara lépp lu ñu def ci wàllu alxuraan dañuy yaak dañuy yaakaar rek ne ci la war naa bokk te ñuy jàng alxuraan waaye nag ñi mën a jàng moom bari na nee na kon nag moom kon sëriñ bi ñoom ñi ngi lay sant nee na ñi ngi lay bàyyeek suñu borom tabaraka wa taala ak Seydina Mohamed ak sa maam jën ak Cheikh Mouhamadou Bamba nee na ñi ngi ñaan nag suñu boroom yàggal la fi kattanal la wéral la bàyyi la ak sam xel bàyyi la ak njaboot bi ndax nii nga tooge tey jii kat nee na nii nga tooge ni la ko Cheikh Sidi Makhtar daa tooge mu ne ana waa daaray Kamil ana waa Cilla ana waa Daarumaan ana ñi doon jàngal xuraan nee na noonee mu doon doxee ci sëriñ bi nag ba léegi daa yokk waaye wàññikuwut nee na nag gis nañ ci ñoom gis nañ ci yow loo xam ne dal nam xel ne liñ gis ci yow mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu rek lañ gis ci yow bayee bu mbay mi xawee doy waar na heure bu ñu bayee nag mbay mi xawee doy waar it. danaan na ngeen def ci tool yi. ñu ne ko tool yi deneen moom doy na waar. mu ne nan ruuji waar rek. kooku moom dana doon soññi fu mu toll rek. ne li sëriñ bi santaane woon. liggéey ak jaamu yàlla. ca loolu nga nekk. nee na ñi ngi ciy ñaaneel yàlla. ci barke alxuraan. ci barke Serigne Touba ci barke Cheikh Mahamadou Lamine Bara sun borom yàggal la fi lool kattanal la yaa mboolem njabootu Cheikh Mahamadou Lamine Bara ak mboolem njabootu kër Serigne Touba woon kaamil yoo xam ne xaw naa takk lool biñ biñ demee nag ba suñ borom dogal biñ demee ba waxtu yu jot ñu am ñeent fukki kaamil ak ñett dañoo am ñeent fukk ak nañ ci dolli bi muy ñeent fukk ak ñett moom lañ jot a jàng tey jii di ko ñaanal yàlla nag. sëñ Cheikh Sidi Makhtar jot ci yool bi ak mboolem julliti yàlla yëpp alxuraan mën na lépp yàlla na ko def yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga wér yàlla na nga kàttan yàlla bu la saytaanam jàpp fenn barkeb sëñ Tuubaa nee sant nañ jërëjëf la serigne bi neena ñu ngi leen di nuyu yaa ngi ñi nga andal ñepp ci àll wàllu alxuraan bi muy juroomi daara yi nga xamne lim nañ leen fi ci jëf ju rafet ju sel ji ngeen def nga xamne ni nga ko waxee noonu la ko cheikh Sidi Maxtaar daan jëflante ak yeen bis bi mu ànd koog nun di ko def ko daa defee nii mu jox nag sëñ Moustapha ndigal ginnaawam mu ne lépp lu ko waay di defal ak bis buñ koy sàkkal na doon bis bii di fukki fan ak ñaar ci koor gi muy bis bi nga xam ne ci la sëñ Sidi Maxtaar feeña ci jamono li ëpp ci liggéeyal ko nag mooy alxuraanu karim mii ndax mooy li jiitu mooy li mujj nee na kon ñi ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di santaale waale mboolem képp koo xam ne jàng nga alxuraan moo xam daara nga yor moo moo xam kenn koo xam ne danga yor sa jëmmi bopp nee na ñi ngi dugal cant gi ci seen cant gi nee na ñi ngi leen di sant di leen gërëm mu ne lim bi nga wax ni muy ñeen fukki kaamir ak ñett day lim bu doy war ndax ñeen fukk ak ñett neena ci wolof mooy jàmm limu baatin bi jàmm la neena jiim gi ñett la mim gi ñeen fukk la kon jàmm ngeen andi neena ku tedd ki neena gisut ci àddina jiinu nekk lu gën jàmm gisut sa lu lugan jamu. gisut yowmal kaamil lu lugan jam kon nag loli bu dajee ci lim bobu ngeen am yaqin ne cheikh moustapha lim beggone ci bis gi ci ñaan gi sun borom nangul nako ko neena kon mi ngi len di sante bu baax nak neena na ñepp nak mi ngi len di sante li ëpp ci mbolo mi yeen la won ak Cheikh Sidi Makhtar ngeen and and bu rafet nee na nee na ànd gi mu andono yeen ma nga ci faat ci saano ci seen seeni wajur ngeen rafetal ko japp ko nak ginaaw bi ngeen weyel ko ci Cheikh mustafa rafetal ko nga xamne bu sëñ bi togo nitam li ngeen def mu ngeen ci yokko dara kon neena ñi nga ñaan suñu borom nak mu nangu ñaan gi yeb tay li ngeen ko ñaanal mom mu ñaanal leen ko ci gudd fan ak wér rek ak yaram bu sawar ci jaamu yalla ak jang bu sawar karim neena ngeen ñaanal ci alquran jeek bis bi neena mi ngi ñaan ci darajay alquran ak daraje bis bi nawet bi ñu jëm kat yalla sun borom barkel. ko telal ko moy nawet bu tel te barkel nga xamne lepp lu ci way ji sun borom dana ko barkel neena mi ngi ko ciy ñaan ci barki cheikhul khadim barki seigne chidi makhtar barki alquranul karim neena mom mi ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ko ci barki alquran sun borom ko fi ndax kilifa munta ñak te amna kilifa go xamne boko amé dang ci wara japp ak sa fukki loxok juroom li jitu ci japp gi nak moy diko ñaanal te sax ci ndigalam bañ ko sonal ci dara kon lolu ngeen ñaanal ko sun borom ndax kilifa la go xamne nu mu wara mel rek mel na ni sha allah ci ay jiko ci melokan ci jëflante ak njabot gi ci jëflanteem ak taalibe yi ci jëflante ak dekkando yi dafa wacce bopam ba nga xamne bu la yalla mayutum xel man nga ko man ko jall jàll. boobu ba léegi day wax ni. ndax booba léegi kat day wax ne. wax ak ñun. day wax ak ñun. naan ñoo bokk mbir yi. naan bokk mbir yi. dañ ko war di waxtane parce que sax baax rek la. bi ne ko de sax baax rek la. kilifteef kenn du ko bokk. mom moko war wacce bopam ak ak ba and ak waa nag bu mu tax mukk ñu bañ koo joxub cërëm waaye kon ñu ngi ko ñaanal rek Mbàkke ñi ngi leen di sant bu baax ku ne nga ñaan suñu borom ci alxuraan ji nga doon jàng Cheikh mi yàlla yàggal ko fi wéral ko kattanal ko ngeen ñaanal ko Moustapha sëñ Moustapha ñu doog a tàllal loxo alayhi salaatu wa salaamu suula gi mu may nu jannatu salaam riddan wa rahmatullahi baddi wa tubina wa qabbina wa kunna wa amna wa xatabi rabbana